ay benn intérêt lan am muy élection yi ñu jëm ñu gagné ko le 24 février. du tontu de ma ne ah, du tontu de. waaw du tontu de bu fàtte kenn benn yi ñu gagné ko au premier ku ñu ah. que ci dëkk bi dañ mooy tiit bu dul xel bu ànd xel. kon ab laat ma ñu ngi feddile suñu kóllëre ñu ngi feddile suñu engagement ci président Macky Sall. murid yi lan moo ci des waa Touba lan moo ci des ndax dama jàpp ne bépp murid lenn rek ngay xëytoo mooy liggéeyal sëñ Touba ba kii nekk jëwriñu xalifa bi parce que ba mu koy wax boobu jëwriñu sëñ seen waxtaan la woon mun na ko liggéeyal nga sëñ Touba sëñ Touba lay fay waaye ñun mun murid yi ku liggéeyal sëñ ba sëñ Touba di ko fay ñun murid yi kon lan lan ko war a fayee loolu te jàmbaar ji góor yàlla nga jël sëñ Cheikh Abdoulaye Lahat dafa waxoon Abdou Diouf ku ko wëndeel war nga sëñ Touba. dëgg la xamul lu taxoon wax ko Abdou Diouf taxoo ko lu taxoo di ko ko jàppale ci sëñ Touba sëñ Abdoulaye Lahat ak dëggoom ak defar gi ñu defar jaam yi moo taxoon mu wax loolu. kon tey jii bu sëñ Moustapha toogaatee président de la république barki leen maag Abdoulaye Lahat

bu ñu demee fii ak deux mille trente quinze ans wala dix ans ci kanam amatul benn politicien muy dugg ci biir dëkk bi te Madakaw du la recevoir. mouvement Madakaw ñi ko composé di ay jeunes yoo xam ne jàng nañ ba pare yor seen liggéey ñi nekk ay jeunes yoo xam ne commerce la ñu liggéey tey li nga xamante ne si ne ñu ngi koy ci ay activités bi ñu defee suñu évaluation ci trois ans yi ñu ànd ak président la République Macky Sall ak léegi. ñu ngi ci suñu 16 millions de membres Mamadou yu ci président Macky Sall. barki démb donc lañ fi organisé benn journée. tudde ko bu mag muy Modou Lo di def ci suñu 3 millions. ñun ay amateurs yi dañ ko def ngir animer sport département de Mbacké. te loolu bu ñu ko defee sa grâce à son excellence président. waaye nag yéen mbokk rawatina yéen jigéen ñi am jom bi Malika bi damaa bëgg ngeen déglu ma tuuti ci président Macky Sall. bala ma cee ñëw nag ma dikk ci diggante Senghor ak Cheikh Mouhamadou Fadal ndax ñun kat Touba dong la ñu te jàpp naa ne Touba ñu gënal dëkk yépp ci àdduna ndax fi lañu juddoo te fi lañ fas yéenee des ndax li tax Touba ma jàpp na moo ñu gënal dëkk yépp ku ci mën a dem ci dëkk bu mën a doon ci àdduna la ngay ñaan yàlla mooy boo fa faatoo ñëndi la Touba kon Touba dong la ñam Senghor nag bi mu wut réew mi ab jullit la doon wutaloon doon réew mi Senghor kon ñu bàyyi naan murid la ak tijaan la ñu leeral ci ne li am koo mën a nga liggéey sëñ Touba rek ma ne ah gars yi nan jàppale président Macky Sall nan ko jàppale ndax kuy wut as góor kuy wut borom kuy wut ngor kuy wut nit ku baax kuy ku nangoo liggéey jàppal président Macky Sall ndax lu ne dégg na ko ci réew mi teewut mu ànd ak ngorom ak fulaam ak jomom ak léppam ànd la ko sëriñ bi waxoon kon daal. fi ma ciy tëje mooy fa Cheikh Diop doon wax ñun waa Touba ñu bàyyi ko xel ndax Cheikh Diop Mbaye dana lépp lu waaye am ci àdduna Serigne Touba la ko may loolu la Cheikh Diop Mbaye wax jàngkatu Cheikhul Khadim man de li ma gëm mooy ba ba may faatu man xawma li gëm ku mën a yor Sénégal Serigne Touba la jox man li ma gëm président Macky Sall bu ko mën a wóotu Serigne Touba ko fal ndax moo ko yoral boppam ndax président Macky Sall li tax ma gëm na Serigne Moustapha Cissé Lô moo ne koroog bi ko Ablaye Wade dàqee mu jógee ci assemblée maa ko indi ci Alaaji Baara mu ànd ak doomu Serigne Gallas Koltoom mu wax ko leen ko jëlee lépp Serigne bi boole ko doomam jox ko biir jox koy daal na ko solo tam ubbil ko barab ba mu dem ñaan cay soxlaam te toog mu ni ma ne kon ku ko jox réew mi Serigne Touba. kii nag di président Macky Sall nga xam ne mooy candidat bi gën ci réew mi moom moo yor bulletin bu bi nga xam dama ne yéen jigéen ñi bu leen demee bu leen ko mujj a jël moom ngeen di njëkk a jël mooy bulletin bu marron bii njëkk leen koo jël yegg des bu leen ko fa sax di bàyyi naan duñ ko laal déedéet da ngeen koy jël muy ngeen lem ko bu leen paree ngeen fas ko ci seen gafaga yii andaaleel ma ko faa nekk wala ba nga xam ne fa lañu andi superviseur ba bay ànd ak yéen pour mu accompagner leen loolu mooy wane ne watal ngeen son excellence président ma Sall mi ngi nii mooy bulletin bu marron bi am bopp kon di sant responsable yi nga ñi fi nekk yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di sant waaye nag di ñëw ci farata li nga xam moo ñu fi dajal tey te ñu nekk fii muy le 24 février 2019 pour faral président Macky Sall au premier tour loolu mooy li nga moo am nañu bëgg di sensibiliser jigéen ñi ak yi di leen xamal ne candidat bii nga xam ne mooy président Macky Sall tey jël décision di ko jàppale dañu bëgg ren ci le 24 février résultat yi Sénégal yëpp résultat yi Touba gën la ñoo lay fay te président nag def na ci dëkk bi lu mat lu jar delloo ko njukkal bu ko defu doon duñu ko wax dafa def lu kenn deful te ku def lu kenn deful la ñu war laa njukkal te defal la waa Touba loo xam ne mënuñu ko te nit bu la defalee loo mënul maanaam da koy sant li ko mën a sant li ñu mooy jàppale ko ci élection yi falaat ko deuxième mandat premier tour loolu la ko waa dëkk bi mënal ndax suñu ko defee dana ko am suñu ko deful dana ko am ndax liggéey na ko ci réew mi kon daal ñoo di xamal ñu ngi leen di sensibiliser dimanche le 24 février ñëpp na ngeen jóg wate ji dem ci bërëb yi comme ni ko Fallou waxee maanaam wate te wateel président Macky Sall te ñu ngeen bu ngeen demee ci kër yi bu ngeen demee ci quartier bu ngeen demee ci mbootaay yi ñëpp na ngeen sensibiliser képp koo xam ne président mbootaay yi wala ngay président association xale yi ñi dem wate ji ci bërëb yi te bu leen xas bu 24 février 2019 loolu rek laa leen di wax di sant encore Gallas di ko gërëm di sant mboolem ñi nga àndal liggéey bi ak waa Madiaw di sant Abdoulaye Faye ñoom ak Aliou ngeen àndal di nekk sama gannaaw yëpp.